sant président de la bi ñu sant yàlla bu baax sant président de la ñu wóolu euh, dugal nañu ci liste bi ñu ànd ko suñu ay nawle les investis notamment madame Mariama Sall doyen Aliou Sylla et les clients euh, mais aussi ñu santal ko ci beneen mbir mooy mu defal ñu honneur defal ñu tête de liste def ñu tête de liste départementale ah ñu ànd ko nag ak population d'abord du département de Mbacké mais également conseillers municipaux yu département bi yëpp ñi ci jiitu di maire yi ak responsable yëpp mobilisé wu tey wote fii di ci ëpp solo d'abord mooy taux de participation bi 65 pour cent 63 pour cent boo leen defee interroger l'histoire bii mu ëpp bi jàll ci taux de participation waaye résultat lim wane mooy ci juróomi téeméer ak fanweer ak juróom-ñaar di juróomi téeméer ak fukk yëpp nee nañu li président Macky Sall def neex na leen ñun dugal ci liste bi doy na leen wote nañ ko mu des lu néew yoo xam ne matul sax ñaar fukki yu teg. loolu day wane na kon choix bi baax na population bi rafetlu nañ ko mais conseil municipaux yi ak départementaux yi yëpp aussi validé nañ ko loolu nag dafa nekk sas bu rëy ci ñun boo xam ne war na bëgg nañ ko relever fee ñu jëm di au conseil ñu fa fas yéene dem pour toogal fa département de Mbacké le Sénégal ensuite mais le département de Mbacké particulièrement xool li ne ci jafe-jafe yi ne ci gox gox yi gox yëpp ñu di ko remonter di ci travail ensemble nag ñun li fi nekk ak ñi nga xam ne président war na leen nooy war par décret ñu fekk si ñu ñu war a ñoom liggéey pour l'intérêt du département de Mbacké incha allah mais également pour avec les maires les responsables et toute la population donc tey mbégte la ñuy yëg mais également damay wax na li gën a yomb tey moom lañ def mooy fal ñëw mais li gën a jafe nag mooy liggéeyal askan bi. sant képp kuy kilifa di ko sant di ko gërëm sant suñu président Macky Sall di ko ñaanal bu baax a baax di sant suñu directeur général DG Gallo Ba lépp moom ma delloowaat ko lépp nag ñun fayam lii lépp rek moom la di ko sant di ko gërëm di sant nag conseillers municipaux yëpp ak conseil di sant conseillers yëpp ndaxte ku taxaw fii tey xam na ni lii ñor na leen bis bi ñor na leen di woo tamit jigéen ñi ndax boo xoolee tey opposition beeg ñëpp ñoo voté ñëpp ñëw jàppale ñu moo bëgg nag jàppale boobu mu continuer di jàppale président Macky Sall di tàllal loxo tamit jigéen di woo ndaxte jigéen département bi ñëpp génn nañ tey ñu leen tàllal loxo di leen topp seen ginnaaw wax ni nag li ñu am ñoo moom ñoo ko bokk suñu borom may ko ndam lu kawe suñu njortu. di ñaan yàlla bañ a tas suñu yaakaar. lan moo leen fas yéene nekk sa taxawaay boo demee fële. ah xanaa taxawaayu askan wi rek ndax jàpp naa ñun amuñu dul ñoom ndax lii lépp ñoom la nekkal leen fa lépp lu fa wax ñu def ko fa jàpp naa loolu taxawaay sant nañ ñëpp gërëm ñëpp département bi daal moo gañe ñoo gañe voilà yow lan moo fas nekk sa taxawaay parce que xam nañ ne euh, opérateur économique nga mais également yàgg ngaa yëngu ci collectivité waaw comme sama taxawaay moom taxawaay bi ma taxawoon rek man yokk ko mu jëm kanam laa bëgg a def dimbali askan wi ñi ma tànn lu ma ci man yokk ko. remercier particulièrement tous les conseils municipaux et départementaux qui se sont mobilisés depuis ce matin ñëw fii voter massivement mën naa ne la coalition Benno Bokk Yaakaar on a un taux qui appro qui autour de 70 pour cent mën naa ne donc c'est un taux assez très très important. tey it euh, tey élection bi défi bi moo ne woon tey mobilisation bi ak vote en masse loolu lañ sàkkoon ci conseil municipal ak départementaux yi conseil municipal ak départementaux yi sont mobilisés ñëw tey voté si en masse ba tey benn Bokk Yaakaar génn euh, victorieuse euh, ci élection yi donc dañuy sant bu baax a baax tous les responsables les maires mais également les sympathisants et tout ce ñëpp képp koo xam daal véritablement yaa jàppale Euh, benn bokk yaakaar président Macky Sall au niveau département de Mbacké. léegi euh, dans l'avenir quest coalition. coalition bu toll ni coalition benn bokk yaakaar mënul bañ mënul ñàkk loolu euh, et puis nous sommes en politique nous sommes dans le jeu démocratique ku nekk si ñun day ku nekk si ñun dafay am am lu mu bëgg am lu muy gisee am lu mu xalaate waaye jàpp naa ne ak dynamique unitaire bi am. lors de ces élections-là parce que dañoo investir amul benn voix discordante amul benn responsable bu jóg taxaw ne man lii ñu def ànduma ci te ñi nga xamante ne ñoo jàppale président département bi ñoom ñëpp ñëpp ñoo mobilisé wu ñëw fii tey yendu ak ñun ñu waxtaan kafre donc jàpp naa dinami boobu dañ koy maintenir pour que ñu mën a continuer ànd nekk benn ndaxte li ab solo du du suñu bopp yi ñun ñi suñu suñu jëmm yi mais ce département de Mbacké moom war a moom la ñu war a yëkkati ci fànn yëpp mais surtout sur le plan politique